di nuyu di ziara bu baax e famille suñu bàyyi alxaaji mayoro fall radiallahu anhu tabaarakallahu di leen e, ndokkeel seen mbokku taalibe ahmadou kenn mbay bu alaaji mbay dondo di leen ndokkeel ci bés bi nga xamante ni moom la ñu jub incha allahu muy le 14 décembre 2023 te ñu wara tek plaque euh garage bi nga xamanteni ni lañ ko duppé muy garage yu ties yaakar na ni loolu ku ko dégg sa xel ak sa xol dina ko nangu ndax euh kari bay ma yoro fali yaakar na ni ku nekk yag nga ko dégg ci ties yalla dogal na nak man amoon naa chance su nekkoon Thiès di fa jàng ci lycée te booba xam naa jafe-jafe yi am ci déplacement ndax man booba maa ngi dëkk euh, kër maam El Hadj euh, sori gi mu sori ak lycée moo taxoon sama waajur sax wutaloon ma velo ma daan war velo di dem di jàngi yaakaar naa ku nekk lycée Malick Sy xam nga loolu welo ba sax le peuple lañ ko tuddee woon ndax daa mujj ku jóg rek war waaye tabaarakallaahu danga daan gis ku jóge taaxi kaw di dox ba lycée nga gis ku jóge r di dox ba lycée ak ni mu soree mu indi nag kaar yu weex yooyu ñu def ci MF duma ko fàtte mukk def ko nag prix boo xamante ni fukki dërëm muy lu abordable fukki dërëm wallahi nga xam ni dimbali na euh, ñi daan déplacé wu mbokki jullit yi dimbali na itam surtout élèves yi nga xamante ni tabaarakallahu daan nañu dog distance yu sori yooyu pour mën a ñëw di jàng si dimbali na ñi nga xamante ni waa Cees yi booba déplacement yombul waaw yàlla dogal tabaarakallaahu loolu nag yàlla na ko yàlla fay ndax itam euh, dimbale allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axiihi euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni yàlla bu jaam dee dimbali moroomu jaamam yàlla dina dimbali jaam boobu kuy dimbali sa moroomu jaam rek yàlla dina la dimbali ndax alquran moo ni wa taawunu al birri wa taqwa wala taawunu ala al ithmi wal udwan dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci nooneel ak bakkar moo tax at taawunu laa yakunu illa al birri wa taqwa ndimbal dimbalante mënul nekk lu dul ci mbaax ragal yàlla sudul loolu nag inna innama najwa mina sheytaan najwa lay doon conspiration moom lay doon loolu nag tabaarakallahu eh, yàlla na ko yàlla fay ndax itam eh, loolu fi sabilillahi la bu rëy rëy rëy ndax eh, volet social la boo xamante ni ku nekk gis na ko xëy na ñi fekkewul woon jamono boobu ñoom ñoo xamul loolu waaye loolu bi ma déggee ñu ni dañ koy tuddee garage bi dama ni ah loolu day yell na ci moom waaw yell na lool ci moom bis boobu mu génne àdduna man yàlla boole na ma ci ñi demoon Ségimadoo ki waaw demoon naa ci waaw sëñ Abdou moo ko taxawee al amin loolu nag ci la ñuy mën a jaaraale sax wax ni tabaarakallahu mbokk jullit la woon waaw góor gu jullite la woon te loolu mooy li am solo ci ci dund man yàlla mayoon na ma chance ma daan ànd ak sama wayjur bay alaaji mbay dondo ñuy ñëw këram mu fay def euh, tuur tabaarakallaahu Adama Sylla mais nga xamante ni yàlla génn na àdduna moo nekk ne so yor kol kol kol gu xonq gi euh, su la neexee sax nga jël ko waaye moom la leen sam papa booleeloon mu leen daan defal seen tuuru chauffeur yi ak transporteur yi bu Baye Mbaye nag amee temps ñu am programme bu kii am na ci bo yoo xamante ni maak moom daf maa yóbbaale ma ñëw ca biir kër ga en face euh, boulangerie Cheikh Ahmad Tidiane Sy bi Moustapha Diagne yore woon ñi di fa fekk Baye Alaaji Aatu Njaay wallaay suñu baay bu baax ba di fa fekk ñoom euh, Mbay Géy di fa fekk ñoom euh, euh, daaw Diop Baye El Hadji Daouda Diop ah, ñoo ñëpp c'est des témoins oculaires yoo xamante ni tabaarakallaahu dañ fa daan nekk euh, Baye mbay di leen defal tuur ak waxtaan ci wàllu diine ak tariqa bi ku ne xamoon itam diggante Baye El Hadji Mayoro Fall ak Serigne Mansour borom daara ji waaw loolu ñun ñëpp li ñuy doon doon ay ay xela ca jamono booba fii ci Tivaouane xam nañu bu baax a baax relation étroite al al al al alaqat allati jarat baynahuma nga xamante ni mooy relation yu étroite yoo xamante ni moo jaaroon ci diggante Serigne Mansour boroom daara ji ak euh, seen woy sunu woy jur woowu di Baye Alhaji Mayoro Fall radiallahu anhuma loolu moo tax moo ubbi digganteem ak xadra Seydil Hadji Malick mu daan ci jëf lu baree baree baree bari man toog naa ba tey ak sëñ Abdul Aziz Al Amin te yaakaar naa ni ah ku ne xam na ni ma ni ma uufe woon eh, mu wax yu baree baree bari ci bay alxaaji Mayoro Fall ci eh, tabaarakallahu waxuma la sax ci ci bir nek mais gamuti awon sax dan na ci am yum ci indi nga xamanteni euh yàlla dogal bi mu génnee àdduna looloo tax mom mu déplacer wu ci turu seigne Mansour ak hadra bi ak Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mi fi nekkon ñëw taxawe ko euh moy wane ni lii yàlla wax ci alquran ni wabtaxi fi ma ataka allahu daara al axira ولا تنسى نصيبك من الدنيا باسكو سيد حاج مالك رضي الله عنه باني ني كرو نين لا موني اه واي كرو دغ لا ندا في لي ني ليغييل ايلك لو فا مانا دوندي موتاخ يالا واخني وابتغي نغا فيما اتاك الله تي لا يالا جوخ تي بي دار الاخره لو خامتني ايلك دينكو مانا دوندي فوفا waye wala tan sa nasibaka min ad-dunya bulni aduna amul solo ba tax duma liggey jëf ci aduna neel ne yàlla neena bul fàtte sa wal ci aduna motax tax bi wax firi aya bi ndax hadith moy firi aya ni i'mal li dunyaka ka annaka ta'ish abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gada yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni soy jëf pour sa aduna jak nang ko fonk ba la gis da ngay jàpp ni yow miy liggéey sax dootoo de mu ni waaye bu ñu la fekkee ngay jëf pour sa àllaaxira nee nañ la fekk ci yow ragalu yàlla goo xam ni danga naan suba suba nga dem loolu nag moo tax jullit ñaari laaf yooyu lay naawe naawu laafu yaakaar ak laafu ragal loolu nag tabaarakallaahu ñaqam moom la daan dunde loolu xam ngeen ko ndax sëñ Babacar moo wax ci sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya ni laa tax faloo bu leen sàggan ayuhal ixwaanu yéen sama ñoñ an xirafin bu leen sàggane métier yi junniy métier dafa doy ci bàyyi sunoog dono ya mooy maam Adam junniy métier la ko la ko yàlla jox ni ko pour sa xeet kenn ku nekk tànn tànn ci loo xamante ni moom nga daan dunde yonent bi sàmm na yonent bi def na commerce ah يونت يالا داوود فورجيرون لا وون والنا له الحديد ها فيه باس شديد ومنافع للناس يالا كو واخ يالا كو تاغاتال وين موم يونت يالا داوود يونت يالا سليمان نافيغاتور لا وون ناخ نغلاو لي سي لا دان ديبلاسي يونت يالا ادريس تاير لا وون موتا سيغ عبد الرب دان واخ ني دينه دو ميتي دين دو بروفيسيون دي دي تيتر لا شيف ريليجيو نينا تيتر لا واي دو بروفيسيون moo tax ñoom ñëpp dañ daan am seen métier di bay di di di di di commerce ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ni maa akala ahadun taaman xayran min an yaakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daawudu kaana yaakulu min amali yadihi daan na wax ni nit lekkul ñam wu gën li mu yi mu ñaq ndax yonent yàlla daawud lu mu mës a lekk da koo ñaq loolu nag moo tax tabaarakallaahu euh, loolu mu nekkoon di jëfe juróom yi nga xamanteni ni bi Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mom la digle won sen diine sen tariqa sen métier sen métier waaw sen daïra ndax yadul ulya khairun min yadis sufla yonent bi néna loxo bi joxe mo gën loxo bi talal ha lolu nak sen métier sen daïra sen yoonu Tiwaawoon mu bokkon ci daïra nak transporteur yi ak chauffeur yi ñu daan amal guddi gu mag ca Tua ca Thiès ca place de France ba ba booba booba tuddagul promenade des Thiès waa sama baay daan ko taxawee ak sëñ Abdoul Aziz Al Amin wallahi mu di fa ñëw di ci jël ñaqam di ci def lu ne mook Alaaji Atu Njaay moo tax ñoom ñaar wax dëgg yàlla yàlla dafa def ay cheikh lañu waaw ay cheikh lañu woon yal na yàlla wanale woon ca wanale leen ca aljanna moo tax seeni njaboot bu ñu àndee wax dëgg yàlla la xarwa waaw jombewul waaw waaye eh, maa ngi fàttaliku sax benn année Baye Mbaye Dondoom yi gàmmu googu gàmmu transporteur yooyu bu ñoom bay Mayoro Fall daje ak benn gàmmu ca dàngu ca Tëngéej sëñ Abdu ni ko yabaleel Tëngéej te nga ñëw ànd ak man parce que alaaji Mayoro ak alaaji Aatu Njaay seen seen programme yooyu ni mu demee ak milieu ba na mu demee yow damay ànd ak yow nga dem foofa waaw ñoom ñu dem fa keroog président daayira dàngu ba sax <laughs> dafa wàcc gàmmu ga ñëw fanaan seeg baay mbay ca da ca ca ca gàmmu alaaj Mayoro Fall ba fajar mu ni ko da ngay dem ti sëñ Abdou ni ko demal nga defal leen tàkkusaan loolu nag mooy wane bu baax a baax ni moom jëfe ne ñaari laaf yooyu mooy ñaq ci diin ci du àddunaam waaye itam dundal diine dundalitam itam tariqaam bi mu bokk bi mu bokkoon te loolu tabaarakallaahu képp ku nekk ci xadara bi nekk ci kër gi xam nga ni def na ko fi sabilillahi ndax nag eh, eh, yàlla moo wax ni ku dépenser sa alal ci yoonam kamathali habbatin dafa mel ni benn pepp boo ji am batat mu sax sabaa sanabil mu saxal juróom-ñaari gub benn pepp du dugub boo saxal boo ji ci misaal ci yoonu yàlla yàlla nee na dafa mel ni sept épis juróom-ñaari gub waaw fii kulli sumbulatin mi atu habba mu ni benn gub wu nekk ma saxal ca téeméeri pepp wallahu yudaa'ifu liman yasha mu ni maa mën a ful ñeel ku ma kon mooy wane ni benn pepp jur na sept cent pepp juróom-ñaari pepp benn pepp jur ko yàlla ma a ful mu ne waaye wallahu waasiun alim yàlla moo yaatu te moo xam loolu nag tabaarakallahu lii man dama ci bég ndax man dama amoon un grand pincement de cœur yàlla xam na ko ndax euh, euh, demam daf ma metti woon waaw waaye nag dund gu gudd amul solo dund gu yaatu moo am solo dund gu gudd mooy nga dund fi lu yàgg te defoo fi dara ah dund gu yaatu nag mooy sa dund lu mu gàtt-gàtt def nga ci loo xamante ni tabaarakallaahu tey jii dañ koy nettali ndax dañu ni doomu aadama naxam ni lu ñuy nettali la waaw dundam lu ñuy nettali la waaw kon fakun xasanan ah fakun xadiisan xasanan liman waa waaw dañ ni almaru xadiisun baadahu dañu ni nit ki bu fi jógee il faut ñu waxtaane ko mu ni kon nanga fexe ba sa wax sa lu ñu lay waxtaane mu rafet te loolu tabaarakallaahu def na ko ci kër gi ci biir ak ci biti bu jàmm gën mësaana jot noonu lay def moom Baye Alhaji Mayoro Fall mobiliser ay otom ñu ñëw taxawu borom daara ji jàmm toolu borom daara ji toolu sëñ Babacar si ndax sëñ Babacar bi mu fi jógee itam sëñ Mansour da daan bay toolu sëñ Babacar bi ba pare ñu bay toolam da daan wax sax ni maa ngi koy fàttaliku ba tey booba ay xale lañu bu ñu ñëwee danaa nañu jëkkër déqi toolu sëñ kër si ba pare door a sama tool loolu ñun ñi ñëpp booba dañ daan fanaan ca foofa di fa di fa di sam papa di fa gàmm eh, maa ngi fàttaliku ñu daan jël ay tengaa dekki ay laafa di ci sotti ceeb ndax booba bool jamewul noonu waaye góor gi noonu la daan def mobiliser lépp indi ko kon loolu tabarakallahu ah yàlla na ko yàlla fay fi zahiri wal batini waxuma laa tudde garage waaye mën nañ koo tudde leneen lu ëpp loolu parce que ñooñu ñooy référence ci suñu réew mi bu ñu waxee naa le nouveau type un nouveau type de sénégalais man damay jaaxal sax ban nouveau type de sénégalais nouveau nouveau type de sénégalais mooy suñu référence yii mag ñii fi nekkoon di liggéey ah biir Thiès foofu waxuma laa garage bi mais Thiès war nañ ko rendre un un hommage mérité ndax lim fa def te yonent bi nak sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni idha mat ibn adam inqataa amaluhu amaluhu illa min thalathin waaw idha mat ibn adam inqataa amaluhu illa min thalathin ne doomu adam bu génnee aduna jëfam day dag ba mu dess ñett sadaqatin jariyatin moy yiwum fi bàyyi sarax bu fi bàyyi jëf jum fi jëfoon joo xamante ni mu ngay daw toujours nee na wa ilmin yun aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam boo fi bàyyi tabaarakallahu ñu koy jariñoo aw waladin saalihin yad'u lahu mooy yéen ñi doom ju baax ju ju koy ñaanal waaw doom ju baax ju koy ñaanal topp ci ay trasam waxumala la côté boobu rek mais li mu ci forbe taxawu ko ci ay chauffeur ah

ngir yàlla ak bëgg tiwaawon bëgg Seydil Hadji malik ak njabotam ah te loolu nak seigne babakar si sëriñ Cheikh dafa waxon ni ah li walu yu le bu am jom boko boko lebalé ker ah mu fayee guddi tabarakallah yal yàlla doli leram tariqa bi mu don zikr nga xamanteni moy tariqa tijaniya te Seydi Hadji malik Cheikh na Tijani moo wax sax te Cheikh na Tijani mu ngi ko ci Bikri bi nga xamante ni salatul fatiha ci moom la jëkk a wàcc ñu ne ko dañ la koy jox nga barkeeloo ko waaye ki koy wesaare mooy Cheikh Ahmad Tijani te daf ni ala marratun minha min an naari fidyatun wa mawtun ala al islami fi daka nee na benn yoonu salatul fatiha njot la ci safara te garanti la faatu ci lislaam ngay faatu waaw ñaata at mu jël salatul fatihi di wird di wazifa di xadara ah téeméeri ñaari téeméeri salaatul fatihi tous les jours ci wird ak wa ci wird suba ngoon laasim bi téeméeri salaatul fatihi ci wazifa ah ak ay jawharatul kamal xanaa nag ay at nga def ko la alamin daan wax ni xanaa dina am benn bu ci yàlla nangu nag ah su ko defee kon tabarakallahu yal na yàlla teg loxoom ci njaboot yi te barkeel liggéey bi fi zahiri wal batini ah, ngeen baal nu xaq daal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.